te foog naa leen rek la desal Sénégal te su àjjuma mu leer mooy mu jox leen ngay Ba te dina ko def te Amadou dafay gagné premier tour. ah bon nga ne mhm. candidat Benno Bokk Yaakaar dafay gagné. Amadou Ba lay doon neex na naxari na te Amadou Ba dafay gagné première tour. premier tour Cheikh waaw yaa wax lool de. waaw le février. 2024 Amadou Ba rek ngay dégg. Amadou Ba ni Macky Sall jàllee woon en 2019. dama xamul nag 59 pour cent wala 62 virgule waaye dina gagné premier tour.